Salut les amis de eSport TV Guy, merci encore de la confiance renouvelée merci de des likes, merci de wéy merci également de bàyyi des commentaires, gars on va faire aujourd'hui le débrief de la rencontre entre les éléphants de la Côte d'Ivoire et les Fennecs de l'Algérie Côte d'Ivoire amené par un Serge Aurier Serge Aurier il respect à ce grand éléphant un éléphant lourd pour les Fennecs de l'Algérie yi nga soulevé. mënuñu soulever ki nga donc l'Algérie amené par un Riyad Mahrez début je suis bien xam d'Afrique ba mais gars respect chapeau beaucoup de respect à Nicolas Pepe Nicolas Pepe Gaï qui kii daf Nicolas Pepe bi Nicolas Pepe c'est dans les grands moments qu'on reconnaît les grandes équipes et les grands joueurs two free par ici la sortie xët gu hamne yi nga xam def ci li moi xam ne mooy wan fruit boo Algérie dañ leen 3 buts à 1 leen Côte d'Ivoire amené par qui Franck Kessié de Milan et aussi euh, ki nga xamné moy Serge Aurier Serge Aurier gay moy xalat né début championnat bi amul won club appelé dem Villarreal Villarreal temps yi ñom ñone tay ki nga xamné moy Jamel Belmadi xolal ci souf da ngay seug ñun ñoy say boss équipe boko mëné dang koy door labaliko ben ñaar ñatt 1 2 3 jamais 203 ba Riyad Mahrez jommi nan qu'est-ce qui se passe lan la lu xew lan mo ñu dal lan mo dal Algérie aujourd'hui la Côte d'Ivoire a donné une leçon de football à tous les pays d'Afrique et du monde la Côte d'Ivoire mi Algérie 3 buts à 1 3-0 match évidemment demagul fen à la 55e minute 3-0 tay bu may gis joueur euh, Côte d'Ivoire gars yi dama non respect équipe boko mené Donc koy door li mo wax aujourd'hui l'Algérie c'est une équipe bo xamné ne ñëpp nañ né defoon nañ ko favori parce que c'est normal mooy jël coupe d'Afrique bi mais tey dañ leen won leçon de football avec une équipe de la Côte d'Ivoire boo d'ailleurs ne dañoo paajal équipe algérienne Algérie bi leen parce que tactiquement l'équipe de la Côte d'Ivoire était disciplinée mentalement l'équipe de la Côte d'Ivoire dafa solidoon mentalement aussi et également sur le plan de la discipline équipe Ivoire Côte d'Ivoire bi dafa won loo xam Ken kenn gis ci football dama même jox exemple bi li Sénégal football fii la Algérie football maanaam dañ doon xalap bal yi ndax lan ligne défensive bi nga organisation défensive à collectif bi Côte d'Ivoire indi tarnaba Algérie mënuñu sax jàll ci deuxième ligne défensive bi donc dañuy toll ñom di xalaat comme ni Sénégal di jouer jamono ji motax amuñu won benn solution ndax lepp luy espace Côte d'Ivoire dañ ko utiliser won ñom tay dañu ñew dominer wan ne Algérie tay ragaluñ la ak joueur yi nga xam ñun ñofi nek ñu naan non ñi ñi ngi jouer ay Liverpool ñi ñi ngi jouer Real ñi ngi jouer fi ñom seeni joueur ñi ngi jouer ci ay club yu mag mais aussi dañu nek joueur yo xam bu ñu ñëwee seen club il mouille le maillot pour l'équipe nationale du Sénégal bu ñu seen club li la Algérie doon joué paajal la len ki Côte d'Ivoire done def chaque fois ngay gis ay joueur yo xam dama leen respecté et aujourd'hui qui du Côte d'Ivoire ak yeneen équipe woon nañ Sénégal affaire bi du wax rek chaque fois Ivoiriens yi dañ doon def la dañ doon jouer ci bop Algériens yi dañuy xatch Algériens yi teud rek ñu paajal comme ni ma koy waxee rek passe wu paajam passe, soit du Dougal, soit Regaï, nous Deflingham Moy centre. Et aujourd'hui, l'Algérie a été dépassée sur tous les plans. Et aujourd'hui, Gaï, Moy organisation, le Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a été clinique aujourd'hui. Également, ce n'est même pas possible défensivement, les Algériens, ils parce que dañ leen a pression am organisation gars yi dañoo dugg wan dès le début du match équipe gars yi dañu bu jaree nous ñu dàll bu jaree xoos ñu xoos bu football ñu football transition offensive du Côte d'Ivoire yi magnifique rien à dire da ngay gis li xam ne ñii dañoo am logique ci football bi li may wax chaque fois combinaison yi da nga koy gis dédoublement yi da ngay gis kii mooy symboliser échec gu Algérie ki ngeen gis nii tey gars yi Benacer ba mu lañ joxoon coupe d'Afrique bi passé meilleur joueur soixante onze mille lañ ko génnee mais tey Serge Aurier gars yi li may wax dafa nekk koo xam ne doy na exemple depuis combien de temps Serge Aurier mi ngi Côte d'Ivoire mais équipe da ngay am base solide am joueur yo xam ñokoy représenter représenté Franck Kessié mom mi wane na jamono ji dama leen koy wax Franck Kessié Paris Saint-Germain mi ngi koy xëccoo Tottenham ñi ngi koy xëccoo pour jël ko ci milieu défensif bi nga xamné mom la Sadio Mané ki di plutôt Gana gay di jouer Franck Kessié mom lañ jël tay def ko homme du match mais gars Algérie bi nga xamné ne Djamel Belmadi mom ci bopam tay dafa ñëwoon ngir dóor Côte d'Ivoire son va-tout la won mais li nga xamné moy symboliser défaite bi xol leen trois yi Franck Kessié Sangaré ak Nicolas Pepe seen prénom yi FIN mu joxe fin c'était la fin aujourd'hui pour Algérie. Algérie bi nga xam ne 90 92 moo 1990, nous 1990 eu la Coupe d'Afrique nous 92 nous éliminer en phase de poule 2019 ñu la Coupe d'Afrique 2022 nous éliminer en phase de poule Algérie n'avait jamais encaissé n'avait plus encaissé tôt, 3 buts à la canne depuis le 1er février 2015 nous avons encaissé 3 buts mais gars aujourd'hui comme je dis encore une fois 19 ni Nicolas Pepe yi nii ëppale wuñ suñu joueurs yi dara suñu joueurs yi am na ñoo xam li ñu ko wax Sénégal boo xool joueurs yëpp ñoo ëpp salaire maanaam de manière globale équipe bi nga xam ne mooy Osaturu nga xam mooy Côte d'Ivoire mais dañ ñoo wan ne dañ ko bëgg dañoo wan ne bu ñu duggee si terrain bi bàyyi dañuy bàyyi soko soko yi les Sénégalais ont déboursé 5 milliards pour jox ko suñu équipe nationale donc tey le Sénégal est en droit d'attendre à ce que tey équipe nationale du Sénégal bi wane loo xam ne tey war na tax ñu gën ko gëm ñun ñëpp ñoo bëgg Sénégal quand parfois il faut critiquer da ngay critiquer parce que la critique, elle est positive, elle est négative. Il faut avoir un esprit de critique et non un esprit critique. Ni nek fi di wax di kaas c'est parce que dañu bëgg Sénégal gagner li wax abattre l'ennemi tay loolu lañu indi coupé décalé bi la Côte d'Ivoire indi ci kanamu Algérie ils étaient organisés da ngay gis Côte d'Ivoire xam ne tey ñii lii mooy lañu indi comme identité de jeu lii mooy seen philosophie de jeu ñoom li lay ñëw ils jouent sans pression que seen joueur yi leur entraîneur Baumel également que je salue de passage respect à lui dafa jël joueur mi nga xam ne ñi ngi performant seen club am ñëw teg leen comme également le Cameroun, amené par un Vincent Aboubakar, actuellement meilleur buteur de la Coupe d'Afrique. Vincent Aboubakar, 5 buts en 3 matchs. Et pourtant, Gaël Kini, qui euh, est Arabie Saoudite le football, qui est Gisney Tamit, moi, show, Leicester de football, moi, moi, patron équipe, les euh, Super Eagles du Nigeria. Vincent Aboubakar, comme Ivoirien, Côte d'Ivoire, comme aussi Camerounais, Bougnou Dougué, Sen Mayo, Koy Amoul Choco Choco, 5 milliards, de Nen. Et pourtant, Sénégalais, Diamono Dji, Nigi Tokfi, Mounou Fay Courant, peu Fay Ndoch donc tous les yeux sont rivés pour l'équipe sur l'équipe nationale du Sénégal nous gëm une équipe nationale du Sénégal donc nous ñuy xaar ci joueurs yi mooy que ne tey bu ñu duggee ci terrain bi ñu fit fayda la Coupe d'Afrique ne se gagne pas par des maquillages ou par des oui si non la Coupe d'Afrique se gagne par des hommes et le Sénégal a des hommes comme les Naby Keïta comme nous nous avons notre Sadio Mané donc au-delà de la fédération fédération quoi qu'on veut dire définitivement nañ mettre nañ équipe bi dans de bonnes conditions ministère des sports def nañu war def Mali ngi ni dañoo ay problème mais ñom buñ ñu ci terrain bi da nga xam aussi cette équipe malienne ils en veulent dañuy wane sen pop quand aujourd'hui gars yi bu ñu Sénégal quoi qu'on puisse dire on a notre El Hadji Diouf boo xam ne tey ñu wax de manière extra sportif pour duggee ci terrain bi day mouiller le maillot wane ne moom moo fi on a besoin que notre Sadio Mané qui aujourd'hui est l'espoir du football sénégalais et le ballon d'or africain le meilleur joueur actuel en Afrique mom lañ ko jox mu duggee ci terrain bi muy haranguer joueur mi di football parfois joueur moy jël responsabilités. Cissé, c'est l'entraîneur. Depuis 2015, il est au niveau de l'équipe nationale du Sénégal. Les Sénégalais sont en droit d'attendre plus de lui. Parfois, damay mais ñu naan non équipe bi buñ ko tek pression mais xam ngeen Franck Kessié la la wax tay après match bi dafa né nous on avait un compte à régler avec l'Algérie daf ñoo éliminé en 2017 buñ ñëwé tay dañ ko wone ñun ñoo fi ñoo fi mom amul kamul li fu amul dara dañ lay wan dañ lay wone fi ñun ñoo fi mom donc quand on entre sur le terrain da ngay jël pression pression bi ñun doy nañ ko ñun ñoy am crise cardiaque ñun ñoy nekk fii nii bi un problème de dépense yeen yi ngi tëdd si lal yu nooy di dugg ci ay ñu encadrer encadré tek teg ci sécurité bu baax ñun ñoy am problème donc pression bi bàyyi leen kook supporter yi ngeen dugg ci terrain bi que vous êtes des hommes. C'est 11 joueurs contre 11 autres joueurs. C'est 11 hommes contre 11 autres hommes. C'est de l'esprit. Équipe, beaucoup y aurait aussi, gars au-delà même de toutes les appréciations, il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Ce qu'on attend de nos sélectionneurs, c'est ko gum, montar nous équipe. Tout le monde, sans exception, ne peut donner casse pour nous dire aller sur équipe. Dans une équipe, n'a fait que joueurs qui sont performants qui sont dans in club, du one sen bob, bougnou, mou, leur confiance, teg l'en tikanam, bail Sénégal, nous football. Arrêtez d'avoir peur bayi di Khalabali, bali tek bali football vous payez des millions vous êtes payé des millions vous avez des seen club yi da quand il joue à Liverpool Vous avez quand il joue au Paris Saint-Germain dañuy avez Nous sommes ñooy soldat équipe ce dont on a besoin si c'est après cela terrain ce sont les hommes qui entrent sur le terrain et gars après Coupe d'Afrique la plupart de nos joueurs sont trentenaires donc génération Coupe d'Afrique c'est une autre génération qui va arriver une génération il y a les Samba Diallo aujourd'hui c'est un jeune espoir le futur Sadio est et peut-être même un joueur beaucoup plus calé que Sadio parce que limi muy dit, jamono ji dit, le équipe U 19 yóbbu ko U20 ki nga ci ci équipe A bi ki nga xam moy John Lopi di capitaine général pour U20 yi U17 yi avec les Pape Matar Sarr aussi il est au niveau du stade de Reims c'est l'espoir du football du Sénégal avec Formose Mendy qui aujourd'hui est un défenseur bo xam mëna jouer axe mëna jouer droit ñi ñoy relève au Sénégal et que boy tay tey wara nek ay exemple yo xam dañ koy gis ci équipe nationale du Sénégal bi ni le Sénégal tay amatu lenn lu ñuy wax équipe boko mené encore une fois dang koy dóor nañu bayyi layam layam yi aujourd'hui félicitations également également au Comores. Comores, première participation, première qualification en huitième de finale de la Coupe d'Afrique. Le Comor qui aujourd'hui, pour l'instant, gagne monnaies du football, tu rafet, tu cohésion, tu philosophie, tu logique. Sénégal, Wanegoko. Respect au Comores. comor même pour toi, il y a perte et perdre quand tu perds de la plus grande des manières d'aller respecter mais quand tu perds parce que nous nañ xamoon nañ ko amul sens information également Malangsa, franco-sénégalais qui joue à Chelsea jamono ji Chelsea daf ko même bu fekkee le club Yubari Tottenham Yubari bëri ñu ngi bëgg ñu jaay leen ko ñoom euh, Paris Saint-Germain jamono ji day Tottenham pour prêt avec option d'achat dans Pochettino Momo moo Non bëgg qui risque de rejoindre le Paris Saint-Germain gars image bi lay terminer avec les Lions du Sénégal ku nek nak sa avis ngay joxe c'est un avis propre woy len di like woy len di abonné jaa ngeen jëf mais gars yi Sénégal les 11 joueurs là face len jom